jërë ngeen jëf mbokk internet yi Naar Fall mi ngi nuyu damaa mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen ñuy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm xaar leen aljana ñu tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu ci àbbi féeti gën a yàlla leen suñu borom génnee bañ dellusiwaat suñu biir ñu tukki nekk ci diaspora bi ñu fay wut yàlla leen suñu borom yombalal euh, ba ñu dellusiwaat fii ci biir réew mi investir fi ndax yaakaar naa ne tukki neex na waaye ñu bisi moo ko dàq mbokk yi nee leen su ne nee koy defalee fépp actualité lamb nekk dinañ fa dugg waxtaanee ko waaye tey kii ñu dalal Badou kenn doon ko présenté ci làmb mooy kan Modou Anta sans frontière bu Gaston production fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ndax yaakaar naa ne internet Bawal TV euh, min nan ki nga xamante ni mooy euh, Modou Anta ci écran Bawal TV ndax yaakaar naa moom bu waxee ci làmb gars yi dinañ dégg te dinañ dégg duñ def lu dul bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom Modou Anta nuyu nan la siyaar. eh Naar maa ngi siyaar maa ngi siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay. di wax ne ginnaaw bi ñu sant yàlla rek julli ci yonante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di nuyu sama mbokk bawol bawol yëpp particulièrement fi ma dëkk muy waa Njeng waa Kër Abdou waa Thialène waa Pocc waa Daaru Mbaw Mbusa Sanc Mbusa Ndiir Mbadiane Kàjj mbajaan Góora waa Ñaxab waa Ceeb di nuyu sama mbokk Saalum Saalum yëpp par rapport ak màggal gi nga xam ne moom lañ mal muy la 14 janvier ci màggalu Sëñ Aliou Diouf Lambaye muy sant saa borom ci bis bi nga xamante bi nii ci la amee woon gërëm ci Cheikhul Khadim ñun ñëpp aussi tamit ñu koy waajal di ñaanal rek mboolem luñ fa ñaan ak luñ fa jàng ci alxuraan yàlla suñu borom yokk yiw bi bu baax a baax a baax di ci nuyu sama sëriñ tamit sëñ Assane Diouf Lambaye ñu sëriñ Aliou Diouf Lambaye ak njaboot gi yëpp di yàgg euh, di sàkkuwaat ñaan bu baax a baax. macha mm-hmm. allah am na solo Modou Anta euh, fi ñuy njëkkee mooy ci li nga xamante ni gën nañ ci muy combat royal bi ñu génn le premier. janvier passé doon dox ci diggante Modou Lo ak Boy Niang jëloon la avant combat bi nga am ay kàddu yoo xamante ni waxoon nga ko ci yaakaar naa ni combat ba mu amee yu bëri yi nga waxoon seetlu nañ ko ci ni macha allah mu nekk loo xamante ni la am mais Modou Anta ak mbëri yi lan day seetaan mbër yi day seetaan seen entraînement ba saabu bu la muy wax ak ni combat bi demee du sore. waaw naa sant yàlla rek la ñuy wax parce que làmb moom geen ku ne la maa la ko gën a xam rek nee ko ba dimanche parce que làmb moom ñu ñee a si yam xëy na ñu ngi ci bu dee cent la trante pour cent lañ ci xam wala quarante parce que loo ci xam-xam am na ñu la fi gën a yàgg ñoom Moustapha Ndiaye ñoo la fi jiitu ñoom ab Ablaye Naar Samb comprendre mënoo fee def luñ fi defutoon mënoo fee wax luñ fi waxtoon mënoo yar xam-xam aussi buñ fi yorutoon xay na la suñu kemtu laay kàttan li nga dañ koy xool seen quatre dernier combat wala cinq dernier combat wala mbër bi bu mbër bu jëlee tànkam nan la def bu mbër masee jëli tànkam nan la def moom bu masee jël tànku mbër nan la def bu buñ ko takkee nan lay def buñ ko caxabalee nan la def buñ ko ŋooboo nan lay def yooyu yëpp ngay xool analyser xool ba xam bëre yi méngoo na wala méngoowul xool ba xam kii aay na ci cong wala resevoir la gën a aay xool kii ba xam aay na ci xeex wala ku dox si kawam la gën a man wala mu dox si kaw mbër yooyu yëpp nag ngay dajale ci sa xelam bopp bañ a ragal nag wax li nga xalaat macha allah parce que su ma juumul euh, dernière émission bi ñu def avant combat bi dama la ne woon booy Niang bu daw na ci jël tànk Modou nga ne ma Eumeu seen jëloon na ko Paul Maurice jëloon na ko am loo ca waxoon ñu gis combat bi Boy Niang dafa daw jël tànku ki nga xamante ni mooy Modou xaaroon nga loolu. waaw loolu boo xalaatee wala nga xool ñoom ñaar ñëpp da ngay xam ne day am li ma jaaxal nag da ngeen a dem ba si digg ba ngeen dagg ko xaw ma lu tax ngeen dagg ko dama ne la fu Eumeu Sène réussirul Euh, les de réussir fa Balla Diouf réussir fa Papa Sow réussir fa est-ce que Boy Niang mën na fa réussir comprendre nga mais nag loolu lépp ay analyse la ci làmb rek parce que man dama gëmoon ne Boy Niang mooy songu Modou Lo yàgg naa ko wax sama émission man dama gëm ne Modou mooy déclenché mais bu demee dina fa fekk Boy Niang du ko dawal te man dama jàppoon ne Boy Niang day songu Modou te effectivement noonu la demee làmb la nag maa ngi dégg version bu ne nag gars yi naan non Boy Niang dafa dafa daw ak dafa bi mu jëlee ko ak bi gis nga làmb boo naree daanu wala boo waree daanu ñaanal yàlla buñ la toroxal buñ la dóor nga daanu buñ la baaganteloo ardo buñ la humilier Boy Niang dafa ñëw bëre ci jom bëre ci fulla bëre ci ngor bëre ci fayda bëre ci dëggal boppam dëggal boppam moo ko gën a xañ combat bi parce que man dama gis ne booy Niang bi xeex bi pënd bi wuree ba wuri chaque jour mi ngi gën a jëm ci kaw Modou te loolu mooy poson parce que le fait que Modou ndaama la Boy Niang njool la bu ñooxoo dajante arrêt bu Modou dóor day dal mais bu fekkee ne booy ñaa njool la Modou ndaam ñu xeex booy Niang def replier wu tuuti foofu day mën a inspirer Modou Modou bu duuree coup bi dootul yëg seeti te booy Niang bu jamee direct bi direct bi day dal boo dee xool am na direct yu mu doon dal di dóor yoo xamante bi nii yii day luppe wala suwaat yii di génn laaw comprendre nga loolu nag combat rapproché bi moo ko waral combat rapproché lenn nga mën a def muy song te booy song da ngay dóor bàyyi adversaire bi mu dóor ba dóor bi jàll nga doog a song seega nag Modou li ma leen waxoon ci xeex bu jaar yoon Boy Niang moo ko dàq xeex Modou mais ci da leen Modou da leen dàq xeexu mbedd mënoo ko natte ci xeex xeexkat yëpp da leen di duma saa bu pënd bee wuree boo replier wu tuuti wala nga daw xeex bi teel a song ji bala ngaa kaaw da lay gaañ comprendre nga loolu la ñu bëree comprendre nga Modou yàlla may ko ndam maa ngi gis aussi tamit gars yi naan xeex bi booy ñaa gaa croisé droite bi ëpp na lum ciy dóor quoi mais dem leen ngeen xolaanat combat bi ba pënd ba wuree ba wuri ba wuri moodu mujj na droite bi la ëpp lu mu doon xeexee euh, ka gauche droite bi commencement bi nag doon na dóor gauche droite mais bi mu demee ba pënd bi wuri ci dernier moment bi benn loxo rek la doon xeexe quoi di féliciter moodu di encourager booy Niang di wax ne làmb noonu. tey boo ma doon wax li nga xamante ni mooy erreur bi Boy Niang def keroog ba Modou Lo daan ko la Boy Niang ci biir bëri. waa erreur bi mu def mooy man xeex bi d'accord naa ko parce que Modou mënoo bëree moom te du ngeen xeex mais da ngay limiter xeex bi xeex bi boo ko déclenché bu fa sax te booy ñaa am na sama benn kilifa bu ma ko waxoon damay bañ a tudd turam dane ma tey yow lan nga gis ci combat boo ma ko doon analyser ma ne ko booy ñaa de man leer na man naññ ne mooy songu Modou Lo li ma ko wax mi ngi ci moom comprendre ma ne ko mais bis bu koy song bu ne coppe tànk ba na ko fa bàyyi tax fu ca ndig la bu mu bu mu kii ci tànk bi parce que tànk bi ay mbër yàgg nañ koo jël te réussiruñu fa nit ak maniinam bako ko bul ne bu ma ko ci jëlee daan ko ci Modou liy problème bi mooy saa bu gëddee Boy ñaa saa bu gëddee Modou wala saa bu dóoree day fekk Modou sëgg moo tax congo bi Boy Niang bëgg du ko mën a am en plus Modou dafa gàtt Boy Niang njool Boy Niang buy songu Modou da koy yóotu kon normalement dafa war a def moom combat rapproché ñu xeex mu expiré Modou Modou ñëw mu replié wu bu ko jamee crochet droite bu koy jël bu nee laal tànk ba day miime rek tafu ci ndigil doog koo mën a daan mais le fait que nag booy ñaa fi mu taxaw fi la xeexe bëre fi song fi te loolu mënul ne nit mënoo taxaw fi nga taxaw arrière woo avancé woo xeex fi jël fa coup ba pare song maman bi muy jël bi muy song ji Modou boobu jël na benn hyperkin même bu kaawul dëgg kaaw na dëggu parce que kaaw dafa bari ay façon am na yoo xam ne ay secondes lay def si yow am na yoo xam ne quarante secondes trente secondes vingt secondes dix secondes am na yoo xam ne une minute lay def si yow mais moom kaaw bi mu jël fraction fraction de seconde la def si moom moo tax nag bi mu nee bëre di songu tànk bi si ginnaawam dafa mel ni lu xaw a tarxiis lu dugg ci suuf si ba mu ne daw na coppet tànk Moodu Moodu li mu njëkk a def mooy da koo nooju mooy damm tànk bi quoi bu damee tànk booy ñaar loxo bi mu jàppee tànk bi day laal suuf en plus bopp mooy doole moodu bàyyi beneen loxo bi njett bopp bi nga xam ne booy ñaa dugg na ci biir léegi nag mu expiré ko dugal ko ci biiram booy ñaa bu doon bopp bi dafa fël fii ay mën a pëtoxlu génn mais moodu da ko dugal bopp bi mu passé ndigili ba yegg ci jumbax bi mu ëmb ko jàpp ci ñaari défentir yi xëcc ko ba mu jege ñaari loxo booy ñaar tege ci suuf xoolaatal combat bu baax booy ñaa daa teggi benn loxo bi ndànk di ko dawal di ko yéegal bi mu nee laal ngémb Modou rek la ko Modou sañaxal parce que bi mu koy sañaxal bu ñaari loxo yi nekkan ci suuf man naa bañ a dem mais ñaari loxo yi nekk suuf boo ñaa yëkkati benn bi yëkkati benn ba ne téye ngémb la rek Modou sañaxal ko amatul appi mu daanu. loolu mooy ko ñëpp di euh, lan moo yóbbu Boy Niang ci tànk Modou Lo ñu ne dafa jël ko ñii ne euh, song ba muy dem ànd ak xelam ñii ne dafa song pour daan lu yóbbu Modou Boy Niang ci tànk Modou Lo. bëre moo ko fa yóbbu parce que moom li mu jàpp. kane maanaam parce que boo Niang bul bul bul bul bul na combat bi song na ci ñaar yoon baaxul li tax baaxul mooy Modou day wàcc bu ñëwee di ko song rek dañuy mbëkkante dañ fay daje Modou xam ne cong bi lay daw comprendre nga léegi nag ñu continuer xeex jël na benn hypercule boo xamante bi nii lenn moo ca maanaam bu dee kaw débu la boo arrière sa tànk yi day damm comprendre boo taxawaatee buñ la dooree mën nañ la jekkali lenn ngay mën a def muy songu am appui bi mu songoo am appui yi nag dafa jege suuf bi mu jegee suuf te ki muy dafa jege suuf aussi tamit mu nooju ko looloo ko ci yóbbu mais nag jël na ko quoi hmm, ñoom ñaar ñëpp jël nañ ko parce que boo dee xool ni ñu xeexe ku yi dal na am na nag yu mooy yoo xamante bi ni dóoru yéene la woon mais toujours Modou nee naa la bu xasee xeex du bàyyi xeex bi te boo ñaam mbër mu vigilant la moo xam ne bu xeexee dafay dagg xeex ba bëre si mais bi muy bëre si nag cong bi moo baaxul. Hmm. macha allah Modou euh, jamono ji yaakaar naa ni kenn mënatu koo natt ci bëre. tey moor Anta bu ñu doon wax Modou Lo li muy bëre yaakaar naa deux derniers combats mépp dafa ñëw wane bëre boo xamante ni ñëpp Sénégal yëpp nangul nañ ko Modou Lo bëre bi ci moom. déggoo li ma la laa waxoon si Sarko enaa leen moodu kenn mënu ko natt si laam du journaliste am na xaw ma kan moo ma jël si woon ma wax ko du journaliste du reporter du chroniqueur du supporter du amateur du promoteur mënoo ko nat parce que day bëree nga ne sawaay kii tey ñu lekk ko mu ñëw xaw a rey waaj day bëree comprendre nga ne ñoo ko ëpp doole mu ñëw mal manee ki muy bëreel kooku na tey lenn rek nga mën a def analyse nga analyse yàlla dogal mu tombe mais natt ko ci làmb Serigne Cissé natt ko ci làmb day xaw a jafe loolu mooy wax ji may profité aussi tamit di nuyu suma gaay yëpp ku ci mel ni Galso 94 moom mi ngi fële wax dëgg yàlla Dubaay di ko bégee di ko jox wàccuwaayam bu baax muy suma waay di suma nit borom mafia bu dëgër bi doomu nday petit production ma koy siyaar ku ci mel ni sëñ baara tamit suma grand bu baax la ma koy bëggee def live ñoom Serigne Dour Baye Jili Tarkinda ñoom sama nijaay aussi ama Abdou Tall bu xarañ loo Aliou borom ram daan Couture Mbaye Diop suma gaay yëpp mboolem koo xamante bi nii daf may woo di ma encourager wala ñoo xamante bu yàgg rek maa lay siyaar parce que naar tamit comme li may wax chaque jour am na si ñoo xam ne samay wóllare leen waaw bu sama bët tooyee gaan seen bët tooy maa leen di bëggee bu baax a baax a baax waaw. macha allah combat Modou jàll ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang coow li bari. waaw ñii ne Modou day bàyyi ñii ne Modou des na ay adversaire ci làmb ci en tant que expert ci làmb en tant que ki nga xamante ne nit làmb tey ëllëgu làmb ci ki nga xamante ne mooy Modou. non làmbam yaatu na moom mooy yor cëggal guyam rek bu ko neexee mun na bàyyi bu ko neexee mun na continuer bëree mais nag dese na fi ay adversaire te àdduna nag. sa waay ki gën a mën àdduna mooy ki jekku àdduna ba pare ba ko moom mi ngi mel ne mu jekku làmb nii rek xëy xëye ba wax dëgg yàlla loolu tamit jëmalewul làmb kanam parce que roi des arènes comme gars yi valorisé wuñu ko tey moo du xëy xëy jël roi de arènes ci Eumeu Sène 28 juillet 2019 daan Ama Baldé 5 novembre 2023 daan Boy Niang 1er janvier 2024 xëy xëy ba làmb yóbbaale koron bi bu boobaa tamit day xaw a doy waar te nee na bu dee day ba yóbbu koron bi mbapat la koy organiser parcelle ñoom Franc ku daan nekk roi des arènes bu boobaa bu ko talfaa jëlee nag. waaw nan lay demee. looloo jar li jënd. bu ko talfaa jëlee est ce que dañuy reconnaître roi des arènes nu talfa coow day bari bu ko Franc jëlee bu ko Gora jëlee bu ko Potilo jëlee. moo yor cëgal gu yem daal mais en tout cas ay adversaire potentiel la ngi si kanam. macha allah mais làmb ji jeex ñëpp ne Tapha Tine mooy adversaire potentiel ku nga xamante ni mooy Modou Tafatine bu Bawol ñëpp ne Modou Lo Tafatine jamono ji mooy combat bi ne ci xelu amateur yi nekk ci xelu ñi nga xamante ni ñooy dund làmb. ma ne làmb ji mooy li ma la boo fi ragalee wala ngay wut fooy làqoog wala nangam sangam gis nga lu logique ñëpp xam nañ ko da ngay wax ne lii logique bañ fee nekk di layaam layaam di mbiiloo mbaaloo Modou Lo mooy làmb ji beneen combat bu Modou jël bu dul Tafatine dafa défier Modou nag dégg naa gaay dafa ragal tafaatin mais ku bombar bombardier bëreeg Balla Gaye mi daan tafaatin bëreeg Lac de Guiers mi daan tafaatin looy ragal si tafaatin comprendre nga adversaire potentiel u Modou mooy Moussa Fatin combat bi mënu ko tegg tey beneen moo beneen combat bu Modou jëlee man dama jàpp ne safawul parce que ñoom ñaar bëri na luñ bokk Bombardier daan na Modou Lo ak Balla daan na ko aller retour Boy Niang daan na Balla Gaye Modou daan ko Tafatine daan na ko Lac de Modou daan na ko la de daan na Tapha Tine comprendre na Balla Gaye daan na Tapha daan Modou Lo comprendre boo dee lim ñun liñ bokk sax dafa bëri torop ci gàttal daal adversaire potentiel Modou Lo la am na nag leneen lu fi nekk muy Sa Thiès kenn gënu ko jekk ci bëri combat royal parce que benn Sa dafa daan rëg-rëg kon tey buñ mënee wax rëg-rëg ba bombardier rëg-rëg daan ko tey Sa li mu nekk ci avance loolu rek a ko téye mais combat am ak bi bu fekkee ne février la Sa Thiès génn seeg ndam kon dootuñu coowte benn combat bu du Sa Thiès Modou xaw ma nag da ciy génn ak ndam xaw ma Eumeu Sène daan kooku yàllaa xam même aussi tamit Reug Reug ak Modou Lo combat la mais lenn rek a ma ci jaaxal bu neexee Modou mën naa ignorer Reug Reug ndax franc ignorer bi nag gars yi buñ ko jëlee ci kàddu bu arrogant comprendre ci wax la quoi nañ ko déggee nopp bu baax bi bu ko neexee mën na ignorer rek rek ne ko franc ngi fi bañ ko jël mais adversaire potentiel boo xam ne amul teggi amul mbiiloo mbaalo amul layaam laami am di Moustapha la ak Modou Lo hmm. Boy Niang ginnaaw bu mu jógee ci Modou moom fa la jëm ci lam Boy Niang Reug Reug combat bu neex la adversaire potentiel booy Niang Reug Reug la ak la de Guiers revanche waaw Boy Niang ñaari adversaire yi la fi am Reug Reug ak Tafatin ak kii nu mu tuddati Lac de Guiers waaw même aussi tamit rëg boo ñaa boo ko tëggee da ngay gis combat bu neex loolu lambu lambu du ko dàq combat jànq la amagut parce que rëg-rëg bu ñu fàtte ne mi ngi ci kuuru VIP yi parce que lu ma ndexew Bombardier la daan Bombardier moo daan Balla Gaye ak daan Modou Lo comprendre am fi ay takkusaan kon nag tey kooku boo ñëwee daan ko avec la manière lu ko xale musul def xale musul daan Bombardier ba yëg ci kawam bu toll comme Reug Reug ni mu toll yore âge bi mu yor moyen de dugg ci làmb 2012 wala 2013 loolu musul am mi ngi seen biir nag kon booy Niang numéro 2 ak Reug Reug ku ko tëgg gis làmb bu neex làmb yi dafa yaatu gars yi maa ngi dégg ñu naan ay Balla Gaye ay mooduloo ak kan am na ku ma dégg ak Siteu comprendre sa waay xam nga lan mooy combat bi Lac de Guiers ak ak ak kii nu mu tuddati euh, ak ak rëg-rëg loolu combat bu neex la Boy Niang numéro de ak rëg-rëg combat bu neex la aussi tamit Boy Niang ak la de Guiers combat la Balla Gaye aussi tamit bu ko neexee mën naa may Siteu sens parce que lamb boobu lamb commerce la Balla Gaye amatul lu muy perte ci lamb def na lépp ci lamb tey ku yor roi des arènes ban koy paasante nañ ci sant Balla Gaye 2 parce que tey nag bi fi waa ji nekkee Yaxya Joob Yékini di ko nuyu bu baax a baax plus de 15 ans mosul dégg muñal mbër yu bëri toll ci bëreeg moom naa koy say conseil laa soxla Balla Gaye dana ko soxlaawu ma sa conseil bëreeg yow daan la laa bëgg buur xam na li koy folli waaye du ko neex kaay ñu bëre ñu bëre mu daan ko ñaari jël jël ci moom roi des arènes ba tey gars yi di ko paasante kon nag kooku tey le fait que muy bëreeg Siteu moom lay neex combat commercial la da ngay jënd fukk comprend jaayee 200 looloo tax gars yi naan Balla Gaye Siteu. macha allah kàddu yi am na solo Modou Anta euh, kontaan nañ waa delloo kontaan bu baax di la siyaar di siyaar suma gaay yëpp ñi ñuy seetaan ñëpp fu waaye nekk rek si réew mi ak si bitim réew ñoo leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax naar jërëjëf. am na solo mbokk yi di leen leen indiloon tey di leen jox dig daje beneen yoon incha allah.